la comité prioritaire bi El Hadj Mokhtar Gueye jiite ak képp kuy mool ñooy recevoir tey une forte délégation boo xam ni mi ngi jóge ci benn doomu ndar wax nga ko kooku mooy Ablaye Sylla mi nga xam ne dafa nekk ci réew mi di def lu baax mu ñëw nag ak dooleem jëm ci organisation bi nu jëm muy le 17 août muy rawante gaal diggante Dak ak Pont Xoolal loolu ñu koy defee ci quai Henri Sey commité paritaire bi nag ñoo jógoon en tant que doomu ndar bind ko ni ci nga bokk ndax fii nga bokk ci diggante dex gi ak géej gi. Abdoulaye nekk doomu ndar doon football fii si ay ASC waa juróom Maawo Sylla muy maamam jumaa ju mag ja ñëpp dégg nañ ba mi ngi koy daane di koy defaral képp ku nekk jullit nekk si réew mi un homme multidimensionnel am taxaway ku am un créateur d'emploi tay limu créer ci emploi rek Ken xamul mu toll ay junne junne junne ay doomu dar nek ci wa rew mi nek ci wa bitim ci club C50 comme nim ko yag di éducation ci walu culture ci walu santé ci walu sport ak rek rewum touché nako ci walu social amna ci si fulla ak fayda ci walu RSE. rawante gal nek suñu culture mu nek culture saint jean yeb fep ne nit di bàyyeekoo ci aduna di ñew di sétan si rawante gal jëfam mo ëpp waxam. comité bi taxaw fi waaye ak communauté gendar yeb langue de Barbarie. nanu wax ndar yeb parce que fetu ndar la ñoo ka kaa gërëm bu baaxa baax parce que li mu def yomb na bu baax lu bare ci fekk ane yi passé heure bi daanu xaw am njàqare par rapport ak vraiment jumtukaay yi ñu waroon dajale pour pour pour fekk waaye moom Ablaye Sylla def nañu loo xam ni daanaka tey jii mënoon teel tëdd nelaw ñun nag bu ñu waxee li am mooy ñun dañu kontaan ndax dañ doon fortaatu ji xaalis foofu daj ci jamaa ko uti xaalis nag dal ci jamaa dëgg dëgg <laughs>